day dem kolobaan marché yi foo tourné seen benn waaye bu taxawal R4 wala benn en tout cas daal am teg rajoom lal benn morso teg ci ay téeréem xale bu ko takk boo examen yaay jël pee téere bii bu tàqali ko ak yow doo tàqali ko xaalis téere bii boo ko takkee boo dee wujj danga mën sa wujj téere bii boo ko nangamee boo ko nangamee téere bi boo ko yoree sa aajo day faju te moom cent franc lay dàq waaw wala déet cent franc la koy jaayee ba pare bëgg a jox nit ñi wërsëg nit ñi dof di fa uti wërsëg mais boo amoon xel xëy di ko ne yow wax dëgg yàlla li ngay wax bu amoon yaa ci war a njëkk am yow boo teet doon doo jaay téere cent franc boo amoon teraanga doo jaay téere cent franc mais jigéen ñi dañu koy wër fekk waa ji mu naan tilimut xale bu jigéen bu ko ci takk am jëkkër boo ko takkee takk ko balaa ñeent fukki fan téere bi tilim danga nga am jëkkër ñu romb sama benn rek ma ne waa oustaz lii dëgg la ma ne ko loolu koy yomb la takkal téere bi daal ci mbarit mi bërëb mu tilim comme nee na fee bu tilimee sa kaw nga am jëkkër loolu yomb la nit ñi dañ koy ràng nga xool nit ñi nga ni nit ñi ban genre lañ ban genre lañ wallaahi loo gën a sori yàlla di gën a dof loo gën a sori sa borom di gën a mel ni bahima parce que da nga nek ko xamanteni sa xel mi du khalat yàlla neena soxla wul ku dul khalat ya ulil albab la borom bi wax ya ulil absar yen borom gisini nit da ngay khalat jamono bi nga geume ni sa borom neena bis ba mu lay ray du changer su wërsëg xolal avant ngay juddu su yàlla bàyyi ba ngay juddu mu def ko leen na am ñu ne pexe nit ci dugg mais déedéet cent vingt jours nga am sa biiru yaay décision bi ñëw góor lay doon am jigéen loolu décision bu dul cent vingt la ndax wa indahu ummul kitab wërsëg lii nga ciy am du cent vingt ah beneen bi say at ñaata lay toll fooy dee waaw nga xam lii ba pare naan nit ki bindal ma ma am wërsëg waaye wërsëg buñ ko doon bind boroom xam-xam yi bëri la ko bu doon ku bind am yàlla xam na ni gaa yi bari la ko waaye ñoom ña koy bind dañoo muur sa xel seytaane moo muur sa xel doo gis dañ laa takkal lonetu fas te kanam rek ngay gis doo gis li la wër su ko defee nag yow miy ñëw diw ku mu defaral kay moom ku mu nangam ku mu taal nga tàkk moom fa mu nekk ma ngay fay kon yow nit borom bi nee na bañal xalaatal parce que yàlla ki muy amal contrat mooy borom xel soo demee nag ba sa xel wàcc dëgg dëgg dëgg da nga àgg ci asfara saafiliin kon da ngay yëg ni yow nit kenn warta dox sa xel waruñu def benn nuance ci sa xel ba doo xalaat bañal yàlla jiitu ci yow mooy mujj ci yow yàlla jiitu ci yow lu muy tekki booy juddu lu ñuy wax kañ nga mucc lu la la ñuy kañ nga mucc parce que xam nañ ni wasin sukuraat la wasin allahu moo tax jigéen ñi ku weddi yàlla yaa ko tey ku fooyee yàlla yaa ko tey kuy ci gisee kuy am doom danga koy yërëm àdduna boo buy tukki la boo gisoon benn animal buy am doom nga xam ni am doom mettee bët yépp yaakaar ni dana dund wala dana dee moo tax bu jógee rek dañ naan mbaa mucc nga ci jàmm nga nekk ci jafe-jafe bu mucc nag nga war a tàgg yàlla sant ko bàkk ko nga ni déedéet ngénte li kay il faut ma ñaral ba mu ñaar <laughs> waaw yow ku doon sukuraat di waaja dee war naatal ñaral ah. kanam gi bomb ko xoos ko def lu nekk peinture kanam gi bind ko dessiné ko def léttu yi ngan yaa ñàkk jom ba ngay jaaxaan fee naan yaa <laughs> loolu xel fa la waroon dellu fa la war a dellu jigéen jigéen ñu baal ma suñu yaay lañ mais ñëpp mokkal yàlla tiif dañoo benn mère bu nekk yi moo leen mère yàlla tiif <laughs> ma ko romee ne ko mère yàlla tiif mu ne naa am doom moom yàlla tiif rek ngeen ne yàlla tiifu mi nga woo latif mi nga woo <laughs> allahu akbar nit moo gàtt xel ba mu may la ak lataafa boo paree boo ko topp nga bañ te gis nga li gën a doy waar doo gis mu yi am doom takk gàllaaj xamoon ngeen ci loolu am doom takk téere <laughs> laaj ko sa femme yi da ngay gis koo xam ne daa ndoom bëgg da koy sonal moom ne ko tekkil ma ko bindil ma moom kay moom nangam yàlla dina seetaan rek su fekkee ndoom gi mën na ci dara xam nga da ngaa ëmb 3 mois 4 mois pas bi takkal la ciw li ah ñu takkal la benn bokkal nga nga nga wër ko ci ginnaaw wër fii ndax bët yi mais bu dara desul lu dul matu da ko génne sànni ko fële. يالا جانغال نال ادنا كون يالا نيل لاي وخال بوروم يي فخيل nga بوكو تي بوروم خيل يويو مودا من لي قومي يتفكرون